Zoom Sine comme ni ngeen ko xamee ci web euh, radio ak web TV muy am tous les mercredis à partir de 16h tey jii ñu ñëwaat ci beneen point euh, ci sunu dëkk beneen point ci ñi nekk ci dëkk bi am yu nuy def yu am solo tey jii ñu dugg ci éducatif bu ne éducatif wàllum jàng ak jàngale te buñ ko waxee sunu xel dem na ci cosi deb COSYDEP COSYDEP buñ ko waxee. ñëpp seen xel aussi day dem ci monsieur Mbow muy kooku di Cheikh Mbow. waaw tey ñu dalal Cheikh Mbow ci sunu show Zoom sur balaa ñuy sori dañuy bàyyi monsieur Mbow mu nuyoo monsieur Mbow maa ngi lay ziar. Ah, ñoo leen di delloo ziar sëñ Birahim mhm. di nuyu waa Seneweb ak mhm. ñëpp ñu ñuy dégloo di ñu setaan mhm. di profito ci barkeb koor gi. yàlla def lépp lu fi waxtaan mu nekk ay ngëneel ci réew mi. di ñaanalit euh, xalé yi nga xamni ne ñoo ngi ci examen. Mm-hmm. yalla defal len ci li gën. donc mm-hmm. ñoo ngi nuyu ñëpp di contane lolu ci invitation Zoom sur bi. ok jërëjëf monsieur Mbow système éducatif dañ ko war a diagnostiquer diagnostic bi lan la. waaw xam nga système éducatif puisque ñun ñëpp juboo nañ ci ni dafa feebar. Mm-hmm. lu feebar dañ koy diagnostiquer. il faut ñu gëstu ci lu xóot pour xam lan mooy feebar bi. yenn saa yi nit dana am góom ci kaw ngay fecc góom bi yaakaar ne yaa ngi faj nit ki fekk fajaloo ko ndax li feebar fi feebar bi nekk gën naa sori li ñuy gis. Mhm. donc yenn saa yi da nga ko jox euh, ay façon garab yoo xam ne ñoom ñooy rey li ci biir. Mhm. ba dootoo gis duggoom bi kon nag nan la ñuy fexe ba faj système éducatif sénégalais loolu moo waraloon bi ñuy def suñu livre blanc sur l' éducation et la formation bu ko si def mhm. ñu ne kat il faut ñu jéem a seet nan lañ koy gëstoo gëstu bu gën a xóot ba li ñuy gis. bañ a nëbb li indi jàngoro bi saa su ne. bu ñu doon seet tey système éducatif ñun li ñu ci feeñ mooy benn bi mooy dañoo am benn système boo xam ni wax dëgg yàlla euh, ni muy doxee. àndul ak euh, yaakaar ak bëgg-bëggu ñi tax muy dox. Eh, donc ñëpp xam nañ ni euh, am benn système boo xam dafay entrer par l'offre ne par force lii ngeen di jàng nii ngeen koy jàngee nii ngeen koy defee bokkul ak système boo xam dafay entrer par la demande. bo xam fay deglu ñi nga xam ne ñoo moom njàng ak njàngale bu ñu fàtte que bu ñuy wax njàng ak njàng ak njàngale damay tàmm di wax ne dafay mel ni usine boo xam ni euh, ñim fay tabax ñi fay génnee ñoo war a tontu ci nan la ñu war a defee développement wu réew mi loolu nag pour ñu mën ci egg dañ naan suñu bëggee am sénégal bu développé jëm fànn bi il faut ñu am ay sénégalais yoo xam ni bii jikko la ñuy am bii xam-xam la ñuy am bii xarañ la ñu war a defee jikko jooju nag ak xam-xam beeg xarañ bi dañ ko war a tabax fan la ñu koy tabaxee ci l'école bi kon nag dootul nekkati entrée porte loof doo ñëw ñëpp ni bii bii mbubb ngeen sol yéen ñëpp nii ngeen war a mel lii yi ngeen war a jàng waaye dañ naan Sénégal lan la soxla ñoo nañ tabax nit a wuyu ci soxla wu sénégalais boobu hmm. donc foofu moom mooy euh, benn ci feebar hmm. naan la bëgguñu école bi hmm. waxuñu bëgguñu jàng de mais dañ naan la bëgguñu école bi demal Touba demal bëri nay dëkk yoo xam ni am loo fa ba léegi école école bi ñuy wax école française loolu mooy benn bi bis mooy ci biir jàngat bi gis nañ ni ba léegi dafa mel ni ñun école France moo nekk biir Sénégal te ñun dañoo nam am école nag Sénégal. Mhm. boo xam ni dafay dafay sukkandiku ci suñuy valeur sukkandiku suñu nit maam Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ahmad Ahmad Bamba ah El Hadj Malick. sukkandiku sukkandiku si li ñu doon. Mhm. parce que ñun li ñu doon bokk la li france bi doon. Mhm. li ñu gëm bokk la ñoom suñu culture ñu donc loolu loolu lépp nag bu ñu seet euh, muy beneen fànn boo xam ni euh, jàpp nañ si biir bi ñuy diagnostiqué loolu feeñ na ci beneen bi mooy. système orientation bi danañ fexe ba nga xam ne ngay am système éducatif boo xam ni ñu fay génn danañ amal seen bopp njariñ amal seen i waajur njariñ mhm. amal aussi askan bi njariñ ba nga xam ne loolu ñu tuddee euh, euh, relation bi war am entre njàng mhm. ak liggéey njàng ak jikko njàng ak nekkeen ci at si askan bi relation boobu ñu mën koo matale ba mu mat konte euh, adéquation boobu ñun nekk na boo xam ne boo xam ne aussi Euh, mbir la bo xamni war nañ ko xolat moy système orientation euh bu système éducatif bo jëlé da nga dem ba ñu jékki-jékki japp xel ne xalé bi kat ñu la la ñu ne kii xamul dara xamul dara te pourtant amna fan yo xamni mom moy moom mooy ki fi mën li may di tooñee ñen ñaa len yus ndur tay bu japp bu système bi wax woon ne ñu la la kon tay du am milliards yi mu am. Mhm. xëy na dañu ci système classique motax mëna am lool mhm. dañ ko gis ci kenen ci benn sportif dañ ko gis ci benen homme de culture dañ ci gis ci benn rappeur donc da nga gis ño xamni

jël ay milliards yu bëri def ko ci assise nationale de l'éducation euh, nga am euh, comment on appelle outils yi ak instrument li ngi tax nga mën a faj feebar bi ba pare feebar ba léegi mënuñu ko faj. Hmm. kon nag am na fenn fu muy sooxe. moo waral keroog bi ñu mujjee def suñu waxtaan ñu jàppoon yenn saa yi affaire bi soit dafay nduru nii euh, ñi yore système éducatif bi du ñooñ ñoo ko war a yore problème compétence waaw xëy na xarañuñu mënuñu ko waruñu ko yor. Hmm. wala bu dul loolu it ça veut dire que yenn saa yi dañu turoog sabotage. parce que munoo am euh, sénégalais ni mu xarañee nga am xalaat bi ni mu xóotee nga am lu toll ci 4000 milliards yu ñu ciy dugal ci 10 ans dans le système éducatif. donc mm-hmm. am nañ xalaat alal baa ngi fi. am nga lépp pour que système bi dox. te système bi dox. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag soit ñu ko yoree ñoo cuune ñoom ñoo ñoo ko war ñoo lañ ko war dénk wala bokk am na ñoo xam ne ci cumbaxloo bee jaxasoo bi dañuy def sabotage moom mooy leen ci arrangé ñun daal euh, dem nañ ba toll foofu ci xalaat. waaw ci biir loolu damay damay dégg ci say wax mu yóbbu ci modernisation wu daara yi kon yow idée boobu d'accord nga ci ndax da nga wax sànq suñuy aada suñuy cosaan mag ñeeg yooyu kon est-ce que bu ñu jëloon modernisation wu daara yi nga yaakaar ni du nekk loo xamante ni lu mën a jëriñ askan bi la. waaw mais xam nga Birame. Hmm. xam nga xam nga sax concept modernisation daara tooñ da ca nekk. Ah. parce que ki yore daaraam. Cheikh Ahmadou Bamba ak kilifa yu mag yi kokki yoreen daara moom jàppoon na ni daaraam ba mu yor tolloo nak limu sox limu li modernisation wu jamonoom soxla tolloo xam nga li ba wax mhm. manam mom jàpp na ni limu am moy li gëna a moderne ci jamono ak ci ay temps mhm. donc boko ko modernisation daara ça pose problème effectivement donc tay li wara am moy lenn moy sank wax nañ ko moy nga am système bo xamni du ñëw imposer nit ñi ban façon jang ak ban débouché ak ban génn waay lay lay mhm. éducation def wante dafay déglu ñi moom jàng beeg jàngale mhm. boo leen dégloo na nga xam ni kat danga am si nga am Sénégal réew moo xam ni bëri na ci ay nit ñoo xam ni bu ñu sañoon seen doom lu ñu mënti jàng it danañ ci boole euh, danañ ci boole alxuraan danañ ci boole diine nga seet nan ngay ubbee bunt ci biir njàng ak njàngale bi ba diine beeg alxuraan bi dugg ci mhm. bu fekkee am nga koo xam ne kii jàpp na ni moom ah moom xam-xamam yépp war na koo jàng jaarale ci diine ak daara waaye war na ko jaaree ci jàngum arab mhm. moom bëggul jaar ci jàngum euh, tubaab bi nasaraan bi bu boobaa nga dugg ci daara ya seet nan ngay fexe ba am loolu mooy loolu ñu tuddee modernisation daara mhm. nan ngay fexe ba am fa ubbeeku te foofu ànd nañ ci d'accord nañ ci ubbeeku ba ci biir daara ya danañ jàng li mu bëgg mooy jàngee alxuraan arab jàngee alxuraan jàng diine jàng jikko koy ñi nga xam ne ñoo yore lislaam ak euh, diine yi mhm. waaye danañ ubbeeku ba mën a xam nan lañuy lire ci français nu ñuy jàngee ci peut-être même ci chinois parce que chinois ngi am ci doole. Mhm. anglais nan lañ ci war a defee. Mhm. Euh, danañ am yeneen façon xam-xam yoo xam ne bu ñu génnee parce que xale bi nekk ci daara bi bu subaa xëy na mooy nekk ji moodu moodu wala bu gannaaw subaa mu yore benn entreprise bu mag fii ci biir réew mi. Mhm. te il faut mu mën a commercer il faut mu mën a wax ak ñeneen ñi nga xam ne jàng nañ beneen façon jàng. kon dana am solo ñu ubbi leen ba ñoom ñu mën a waxtaan ak euh, ak askan bi ak réew mi parce que ñëpp xam nañ ni àdduna léegi nekkatul réew mu tëju. dotul liñ wax nan liñ don jamono 90 ñu euh aduna léegi village la. Mhm. léegi la gëna nek deug dëgg. Mhm. léegi dafa ubbeeku ubbeeku boo xam ni tey soxla won journaliste doone par force ay sénégalais ngay am fi Sénégal da nga nan ñen ñoo gëna xarañ ci journaliste. mën nga koo mhm. mën Niger mën na jóge Tchad mën France mën na jóge Sénégal. kon dafa ubbeeku mo waral ku ne soy jang war nga jang it nan ngay fexé ba mëna jakarlok benen askan. jakarlok benen aada ba mëna commercer ak aada. ba nga xam yow kenn du la nax sa biir aada. donc sur ce plan là waaw soutenir nañ loolu ñu tuddee modernisation des daara même bu fekkee ni tour bi man daf may xaw a daf may xaw a poser un problème philosophique parce que modernisation daara pour man ab tooñ da ci nekk. waaw. su ma déggee ci say wax aussi da ngay day mel ni que enseignant mooy kan moo war a jàngale question boobu laa lay laaj. waaw pour euh, jàpp nañ ni ki war a jàngale. Euh, bëri na parce que waajur bi dafa war a jàngale xam nga jàng ñoo ngi koy tàmbalee xam nga nag ñun conception bi ñu am si njàng. Mhm. dafa yaatu dafa weesu école kese. école classique mooy école set ak école CM xaw ma noonu mhm. bu nee njàng mooy bu nee école pour ñun mooy fépp fu ñuy utee xam-xam. Mhm. fi ñuy utee xam-xam dana nekk ci daara ja dana nekk ci atelier ba. fi ñuy jàngee tailleur. dana nekk ci l'école classique bi ngay wax yow. moy CM bac lycée bec école 7 bec école huit xaw ma école et da na nek ci kër ga. na nek sax ci xalé ba fa muy dañ fa wutee xam-xam. na nek ci Sénégal bi muy sétane ak télé bi dañ fa wutee xam lépp fépp foo xam lieu d'apprentissage la lieu d'acquisition de savoir ñun l'école la pour ñun. kon ki wara jàngalé moy képp ko xamni da fay jàngal da fay da fay justement da fay animer lieu d'apprentissage donc waajur la ñu tàmbali kooku jàngalé jàngale. ndax waajur moy ñeu wara fatali dom fàttali na ko lan nga jàngoon tey nafar nafar nga ko nafaroo ko fan nga ci toll. moom mooy décrypter moom li muy seetaan ci télé bi. moo koy jox ay jikko ci ay ay ay ay mën ay compétence ki war a jàngale moom mooy euh, maître maître ba nag maintenant ñi nga tuddee instructeur bi wala professeur bi kooku la a jàngale. kooku nan la war a mel mooy li nga wax euh, jàpp nañu ne bu fekkee jàngalekat la boo xam ne dañuy dem ci école classique yi dafa am ay normes dafa war am loo xam ne da ko war a xam balaa muy dugg. dafa war a am ay diplôme mu war a am balaa muy dugg si jàngale. Mhm. buy jamono ñu naan la BFEM la war a am balaa muy def concours bi. Mhm. léegi ñu ne la bac la war a am balaa muy def concours bi bu ñëwee am na xam-xam bu ñu war a def ci moom a xarañ a moo tax ñun ñu xeexoon quota sécuritaire ne mosuñoo d' accord ñu jël Birahim rek yóbbu ko ci école ci classe ba directement na ko demal jàngale te jàngaluñ ko ni ñuy jàngee. Mhm. nit gis nañ ko mu am doctorat gis nañ ko wante am xam-xam ak mën a jàngale wuute na yoon ngay yore sa doom yow bëgg koo jàngal lenn mu tëla loolu parce que jàngoon ni ñuy jàngale kon nag ñu bañ a jàngale métier moo waral ñu ne école de formation fi ñuy formé fi tàggatee jàngalekat yi war nañ ko joxaat gëdd war nañ ko joxaat doole war waruñoo nangu benn yoon mu am ay jàngalekat yoo xam dugg nañ ci classe yi te ñu ni ñuy jàngalee mm-hmm. donc ki war a jàngale kon dana am diplôme yu mu war am def concours bu duggee war nañ koo tàggat ba mu mën a jàngale parce que jàngale métier la da koo xam bu ko paree nag maintenant ci biir tàggat boobu nag yemu waruñoo yem kese si jàngal ko ijji jàngal ko les ba à ba waaye war naa mën a sax jàng jikko parce que bu jàngul jikko yi moom jàngalekat nan la war a mel mhm. en terme d'aptitude bu fekkee jàngul jikko yooyu li muy jur mooy day nekk comme un sénégalais lambda day mel ni sénégalais bi nekk Seneweb wala sénégalais bi nekk Sandaga wala sénégalais bi nekk étudiant donc bu nekkee am na jukko bu ñu bëgg mu am ko en tant que jàngalekat hmm. loolu dañu ko war a mooñaale ci bi ñu koy jàngal-jàngale hmm. kon nag lii mooy bëgg a tënk ci question boobu daal mooy jàngale métier la hmm. métier nag dañ koy jàng ba mu mokk ok waaw loolu am na solo parce que aussi ci sa biir discours da ngay yu am solo quoi parce que comme sànq li nga wax ci Youssou Ndour eh, mbër bi day day am tamit ci moom kon jàppoo ni est-ce que am na yeneen branche yu nu war a teg pour gën a parce que Sénégal dama damay dégg souvent ñu naan dafa bëri lu nu war a defar yow ci say xeex est-ce que gisoo ni am na ñu war a encadrer booy ci loolu.

mooy wane waajur bi bi mu ko seetloo ci tel fànn donc bu ko defee xale bi li mu mën fi mu gën a aayee fi mu gën a mokkee ñu koy bind ci fay ñu koy bind ci kayit bi ñuy màgg ak moom bu ndee ba ci kanam dana xam xale bi xale bi kat ku ko pousse ci football. dana nekk footballeur bu mag bu ànd Sénégal du bokk nag du teg du teel dana jàng nu ñuy bindee ak nu ñuy defee leneen. Mm-hmm. wala nga gis ni ah xale bi kat ku pousse tuuti ci niveau culturel xëy na mooy nekk rapport bi mën ci senegal ci ci ci ànd. wala nga xalé bi kat ku ko pousse touti mu nek mathématicien bo xamni bu neubatu la donc boko ko forcer lank lang te fekk mathématique mo nek ci mom kon nak réew mi dana ñak dana ñak dana ñak ben talent kon nan lañu amé ben ben benn œil un autre œil ben bët bo xamni fay dafay suñu doom kenn par kenn mais loolu pour nga am ko classe pléthorique yi nga am moy ben classe bo xamni fay am 100 élèves koku do fa mëna a chaque élève xam nga li ma wax bo bëggee jàngal pas jàngal seulement classe waye nga jàngal ak di suivre élève bu ne il faut que nombre de nombre d'élèves ñu mu mu réduire mu wàññeeku loolu mooy benn fànn bi kon japp nañ ni euh, li nga laccé li koy régler moy orientation scolaire ak guidance scolaire moy waral ba nga euh da nañ déglu ñun Sénégal lan la soxla bu né Sénégal émergent nan la ko nan la ko téké lan moy Sénégal émergent pour ñun fi ak ban at la ñu ne Sénégal émergent bob pour tabax ko yan nan la Sénégalais bi wara mel ñi ko war tabax nan la wara mel ah donc bu ñu démé nak ba jubóo ni ñi ko war tabax ni la wara mel ñu ñoo jikko nañ ko ci curriculum bi nañ ko ci ba nga indil Sénégal émergent 2030 est-ce que tu vois la relation. noonu moom euh, relation bi dialectique bi am entre li bëgg ñun suñu développement réew ak euh, profilu sénégalais yi nga ñoom a def ak euh, ak li nga xam ne moom mooy donc bu ko deful rek un système général boo xam bon voilà li ñuy seet mooy ndax làkk na français ak làkkul français def na faute ak deful faute donc day nekk un système général mais yenn compétence ak yenn qualification ci mais nag je crois que war nañoo saluer que Sénégal moo ngi def ay góorgóorlu bu rëy ci loolu ñu tuddee formation professionnelle enseignement technique formation professionnelle mm-hmm. donc jamono ji ñu weesu wax dëgg yàlla at yu weesu gis nañ ci am nañu ay jéego yoo xam ci am ci mais li ci des mooy ñu gën koo renforcer ba nga xam en terme d'orientation scolaire dootul amati sax échec xam nga boo dégg ñu naan la ay classe classe bi ñëpp war a jàll. wala war a aw war a war na nekk zéro regroupement. esprit la am na nu ñuy defee système orientation bi effectivement mais ñëppay jàll. ñëppay réussir mais ñëpp du ñu bokk ci la ñuy réussir loolu rek mooy différence mais ñëppay réussir parce que amul nulaar amul. ku la ku nulaar ki nga xam ni dañ ko bëgg a benn façon benn façon yi loolu moom mooy li am donc jàpp nañu daal bu ñu réfléchir encore ci bu ñu joxaatee gëdd loolu ñu tuddee orientation scolaire. Euh, loolu bu ñu ko defee dana mën a tax ñu mën a am effectivement sénégalais yi porte développement réew mi. te pourtant li ngay li ngay wax nii bëri na njëriñ gu mu mën a am ci askan bi ah, wax dëgg yàlla. Euh, sa mbokk yi ah euh, syndicat yi leen di dégg rek ci ay coow wax ñu la mooy syndicat problème mu yi lan la. waaw xam nga lan mooy syndicat syndicat c'est

Hein? bu ñu mënee am yenn indemnité ñu xeex ko am ko. Hmm. bu ñu fexee ba seen lieu de travail bu dee ci l'école ba ñu gën koo baaxal gën ko rafetal ñu defar ko extra donc loolu moom mooy euh, syndicat de manière générale. Hmm. mais bu Sénégal xam nga dafa yéeme du Sénégal kese de pays francophonie la euh, déjà nga am yenn nombre syndicats yi c'est un problème ah plus de 30 syndicats nit ñi nga wax sax 40 50 gëwuma loolu xam naa daal weesu na trente syndicats pour réew moo xam ni. Euh, euh, nigeria maintenant na dix fois. Mhm. ñun ñu ëppalé syndicat Nigeria ëppalé nañ ko dix fois syndicat c'est un problème. Mhm. pléthore syndicat il faut mu jeex. bu jeexul vous muy moy mooy euh, pour wane ni day pour ni mom amna mu gréw ko défé ñuy wujé ci bir gréw bi wujé ci bir day donc li il faut ñu ñu nombre syndicat ñoo ngi dem vers des élections de représentativité en octobre loolu la ministre wax. Mhm. ñu koy rafetlu waxtaan nañ ci moom ku si dem joxe na ci xalaatam ci fànn boobu. Mhm. jàpp nañ ni loolu dana mën a tax ñu dalal ba xam ku nekk lan ngay tekki ak ku nekk lan nga peese mais beneen bi mooy ñoom seen bëri waaye sa arrangé wu leen parce que day yàggal grève mhm. jamono bi nga xam ne syndicat benn ak la yaa ngi fàttalu jamono sud-est bu njëkk ba. jamono jooju bu nee ku nekk leen ñeme parce que dañoo bëri jubóowuñu bu ñuy gréwee ñee ñoo ngi jàngale ñee bu ñu jàngalewul donc dañuy finalement sax dañuy tardel bi mooy li ñu bëgg duñ ko am coow li dana gën a bëri respect bi ñu bi ñu war a am ci askan bi dana manqué respect bi ñu war a am ci gouvernement bi dana manqué kon li ñuy ñaan suñu mbokk syndicat yi mooy ci benn si jàngat bi ñu war a am seen gréw bi ñu génn moo ñu juboo nekk benn bu ñu nekkee benn dana gën a gréw kenn dinañ ko parce que réew

parce que mënoo am ñaxtu bo xamni depuis 2004. Mhm. ba tey nga nek 2016 muy 12 ans. Mhm. nga koy ñaxtu. Mhm. mu xeex koog Abdoulaye Wade sotul xex ko Macky Sall sotul moy yow mi sa bop am nga problème efficacité. donc loolu yëpp daf ñu war a yóbbu ñu xoolaat leadership syndical xoolaat organisation syndicat yi. ba nga xam ni danañ jéem a mën a créer waat d' autres alliances. loolu bu ñu ko defee euh, dana leen jariñ ñoom dana jariñ euh, gouvernement bi. dana jariñ aussi askan bi. est-ce que syndicats yi ñoom ñoo du ñoom ñoo am seen problème seen biir mais pas syndicats yi ak état bi. waaw non cest dire que ñaar yooyu yëpp a amandoo à la fois à fois am nañ problème seen biir parce que booy gisee cadre ni muy amee di tas yenn saa yi nga dégg sax ni ñuy clashante ci rajo beeg télé bi. dégg ni ñuy waxee ni ñuy bindee da ngay xam ni seen biir juboo bi war amul wujjee bi moo nga fa te mën naa ñàkk wujjee bi. Mhm. syndicat bu liggéey jar sax boo liggéeyee dëgg ñi nga xam ne ñoom ngay représenté dana nangu ne yow yaay sànq mag nan la da nga dem ci koñ fekk fa ñaari boutique te ku nekk sa boutique moo ngi dox. waaw ñaari syndicat yëpp mën nañoo dox. Mhm. te du benn problème donc wujje bi mën naa ñàkk. Mhm. li gën ci wujje mooy nga liggéey. Mhm. man tontu boo nekkee di liggéey mooy nga liggéey. meilleur tontu mooy liggéey ci àdduna bi ñu nekk. donc fi ñu toll euh, loolu donc am na problème seen biir way parce que yenn saa yi nga dégg leen xam ni euh, neexoo bi war am amul yenn saa yi sa syndicat def loo xam ni moromam moo tax mu def ko man it beneen problème bi am mooy am na aussi problème entre syndicat gouvernement bi. parce que nag bu ñu waxee dëgg bu wax dëgg grève wu daaw bi yëpp fi mu lalu mooy gouvernement bu ne man dinaa def lii te defu ko. waxaat ko defu ko waxaat ko ñetteelu yoon wala defu ko loolu boo ko defee quand même kenn mënu tànn ak yow moo tax ñun ñu chaque fois bu ñu waxtaan ak ñu nekk ci gouvernement dañ leen leen mais yéen mettre leen ñu à l'aise ñun ñi nga xam ne dañuy yenn saa dañuy facilité mettre ñu à l'aise mooy da leen wax li ngeen mën a def parce que boo leen waxee li ngeen mën def dana mën a wax ñi ci des mais bu fekkee ñëw nañ seetlu ni yow li nga waxante defuloo ko boobaa day jafe ñu mën a yedd sax keneen parce que keneen ki day am dëgg. dafay am dëgg te xam nga magum jëmm euh, fii toll wax naa ne jamono bi ñu toll. yàlla moo def question de rôle la rek yàlla def kii nekk président kii nekk ministre kii nekk coordonnateur ku si yow nga nekk fii journaliste kii nekk euh, secrétaire général syndicat mais ku ne mën na ne fu ne. c'est-à-dire xam-xam bi léegi mo ngi ni. Mhm. c'est accessible. Mhm. Euh gaay yi dañoo éclairer, gaay yi mhm. dañoo jang, gaay yi dañoo xam dañoo mën. Tay ki nek secrétaire général syndicat mën naa nekk suba ministre. ministre ba tay mënoon naa nekk journaliste etc. donc il faut que ñu comprendre ne am ay rôle yu ñuy jouer. maintenant nak ku nek nak na nga jouer ce rôle au maximum et en toute franchise maanaam teg ko ci deug, laal ko ci deug. Moy gouvernement bi nay diggé lu mu mën def di def lu mu mën li mu diggé.

une conséquence lay def ci élèves yi. bëri na. ah na de te xam nga grève yooyu sëñ ah. euh, li nga xam ni moo ci metti ku mel ni ñun. Mhm. mooy du laal xale yi Sénégal Sénégal ñoo jouir ci droit à l'éducation. Mhm. grève yi xam nga ñan lay laal. Mhm. xale yi école publique. école publique. ñooñu rek ñooy dund grève loolu dafa nekk loo xam ne ñun def ñoo metti lool lool lool parce que injustice la xale bi nekk école publique xale bi nga xam ni waa juróom amul juróomi ju juróomi junni yu mu ko yóbboo ci école privée xale bi nga xam ni jàpp na ni moom ci nguur la yaakaar mu nekk papam bi njëkk mhm. parce que nguur mooy papa yi ñëpp mhm. moo ko war a jox école jox ko jàngalekat muy fonctionner mu am ci résultat xale boobu mooy ki ciy gën a dund te bu ñu eggee tey jii ci examen yi bu ñuy def examen ya

da gis grève yi ñuy am Sénégal nga xam ni weesu na fukki at di dem at bu jot xale bi ñàkk euh, weer at bi ci topp moom ñàkk ñaari weer at bi ci bu ñu cumuler li muy ñàkk lépp boo ko dajalee xale bi li muy ñàkk dana ñàkk wax dëgg yàlla presque une année scolaire wala deux années scolaires si biir si biir kii sosum booy dajale li muy li mu ñàkkoon daaw ak li mu ñàkkoon daaw jéeg ak li mu ñàkk ren boo ko dajalee dana dem ba mat année scolaire donc loolu aussi problème la problème la nee naa la sànq bu ñu eggee ci cëppaandoo ba mooy fa ñuy utee liggéey wala bëggee tekki boobaa dañuy seet ñi gën a xarañ ñi ëpp njàng ak ñi gën a xarañ effectivement adduna bi ñu toll seen yoon neen suñu yoon newatul ci ndax sénégalais la wala ndax tchadien la wala ndax russe la mhm. suñu yoon xam nga ci lu mu ne mhm. bii liggéey moo fi am appel à liggéey boobu kat moo ci gën a xarañ moom lañu ko jox mhm. fekkee yow la da tombe nag yàlla féetal la système boo xam ne dafay perturbé wu tout ba nga xam ni waxtu yi nga war a jàng day manqué xam-xam bi nga war a am du de day day des boobaa yow da ngay nekk ñoo xam ne toujours ñeneen ñi dañ lay raw moo waral tey boo jëloon euh, temps yi def nañ benn gëstu boo xam ne dafa joxe euh, tout ce qui est euh, système efficience su cartographie bi yëpp ba xam réew yi gën a yi gën a yi gën a xarañ yi ëpp résultat gis nañu Sénégal at bu jot moo ngi dellu gannaaw ci mbirum éducation Gambie gii ñu weesu moo nekk ci cadran d'efficience le plus élevé moo nekk suñu kaw en terme de cadran d'efficience te Gambie barki démb rek la am université kon nag ñun war nañoo xalaat suñu ñun réew yu bëri ñoo leen rawoon ndax xam nga ni tubaab bi fii la tàmbali woon colonisation fi mu doon capital am amoon départ bu rëy boo xam ne amoon nañ ko bu sénégalais am na sax ay exception waaye xam nga njàng du ay du élitisme nekkul ay ay exception si loolu ngay joxe ay si loolu ngay ngay ngay ngay ngay nattee résultat wu réew bi mais da ngay seet ñi ëpp lan la ñuy am comme résultat kon bu ñu deful ndànk daal euh, résultat yi dellu gannaaw ah, xale yee donc seen xariñ dellu gannaaw te loolu bu amee ah, bu subaa euh, wax dëgg yàlla euh, ñun rek ñooñu nga xam ñoo ci perte. kon grève yi nga xam ne moom la ñu dund jàpp nañ ni lu lu ñu war a dellu féetale ginnaaw la te pour féetale ko ginnaaw comme ni ñu wax ñun jàpp nañ ni euh, Sénégal am na lépp pour wax dëgg yàlla ñu mën ko weesu. ok euh, solution bi souvent ci pour mu pour mu am ci état lay jóge ak. enseignants yi léegi fan yére dégg nañu état bi jëloon benn menace teg ko ci kaw e enseignants yi ba kilifa diine yi dugal ci seen loxo ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba ndox ba wus nañ ndox mu sedd léegi parce que loolu wàllu kilifa diine yooyu ñu ñëw tey dugal seen loxo ci biir kii bi nan ngeen koy jàngatee yéen ak ak aussi lan ngeen di pare parce aussi. Euh, ku dem ba kilifa nekk sa ginnaaw war nga xool na ngay doxee nag parce que am yoo xamante ni dootul nekkati eh, lu lay baal kon yéen nan nan nga ko gisee yow loo xamante ni mën na ak dugg dugg duggalul daal kilifa diine yi seen loxo ci biir mbir mi. waaw ñun jàpp nañ ni euh, solution wu système éducatif warul yem kese ci gouvernement ak syndicat. parce que jàpp nañ ni jàkkaarloo boobu sax moo tax ba système éducatif boobu ba léegi muy dellu gannaaw bu Sénégal. Mhm. parce que dañoo dem ba d'accord ni ba mel ni ñu na ñu nangu ni bu coow amee kiy indi coow li ak ki ko war a fecc mooy jàngalekat bi ak ministre am. ñoom ñaar ñoo doon mhm. jàkkaarloo ñun ñu yàgg wax ne nañ kase frontalité boobu askan bi dugal ci baatam kon tey bu ci kilifa diine yu duggee day mel ni. suñu wax bi ñu waxoon moo ngi ñëw. Mhm. mooy askan ba nga ci dugal seen. parce que mhm. kilifa dinañ ñoo ngi ci askan bi. ñoom du ñu jàngalekat du ñu gouvernement. Mhm. wax nañ ñu war na gën a yaatu sax kilifa diine yi kilifa aada yi war nañ ci gën a dugal seen loxo. jàpp nañ booy fàttali ko ah, ci ren ji bi coow li bëree am na benn rassemblement citoyen bu ñu def place de l'obélisque. rassemblement citoyen boobu mu nekk rassemblement bu mag bu ñu defoon place de l'obélisque mais boobaa dañ cee woo ñi nga xam ne du ñooy acteur direct dañu woo waajur bi woo jaaykat bi.

maa ko moom parce que man maa tabax l'école yi. Mhm. askan bi mooy joxe ay taxes ak impôt ba tabax l'école. maa ko moom parce que man maay fay jàngalekat bi di fay sax ministre bi. xawee mhm. ah képp ku fayeeku te nga nekk fonctionnaire moom maa la ko fay. maa ko moom parce matériel bi ñu fa joxee muy table banc beeg livre yeeg kay man sax maa ko jënd. Mhm. donc askan bi. maa ko moom parce que xale bi bu génnee man la war a jariñ wala bu ñàkk maa jariñ mhm. bu nekkee suba euh, ab bandi wala bu suba bu nekkee agresseur man lay agressé mhm. kon man maa am système boo xam ni xale bi fa nekk su fa génnee dafa war a génnee ak jukko yi ba bëgg ak xam-xam bi ba bëgg mhm. maa ko moom parce que réew mi bu ñu koy tabax du réewu Macky Sall président Macky du réew euh, je ne sais pas ministre tel du réewu député tel mais réew askan bi la kon nag man bu nekkee fexe nañ ba ñu système éducatif mu am euh, mu am xarañ boo xam ne bu ci nit génnee dana mën a tabax suñu réew maa ko moom ñu ne kon askan boobu bu demee ba yeewu ci man moom moom école bi. Mhm. dootul nangooti ñeneen ñu ko moomul ñoo xam daf leen employé di leen fay. wax naa la mooy fay ministre mooy fay jàngalekat bi. effectivement jël leen en otage. Mhm. waratu ko nangu. Mhm. dafa war a am fulla wu arbitré. am fulla wu yenn saa yi mu ne eh, doy na. am fulla wu ne yow gouvernement bi am fulla wu ne jàngalekat bu nekkul ci dëgg ne ko yow yaa nekkul ci dëgg ndax lii ak lii ak lii donc loolu ñun loolu lañu yàgg yàgg ñaan kon tey jii bu ñu gisee euh, kilifa diine yi dugg ci dañ koy rafet jàpp ni euh, li ñuy ñaan mooy ñu dollee ñaanal parce que ay kilifa diine lañ dollee ñaanal système bi li ñuy ñaan mooy ñu nekk aussi mbir moo xam dañ ciy dugg rek duggaayu ku jaaxle woon mooy tiitoon ndax système bi jaxasoo mm-hmm. waaye ñu topp ko ba mu sës mm-hmm. wax ak ñi ñu war a waxal ba mu sës ba am ci résultat bi war li ñu ñaan mooy kilifa diine yi euh, gën a dugal seen bopp à partir de lii ñu gën a dugal seen seen mbir ci mbirum njàng ak njàngale mm-hmm. xam nga li xew ci yenn yenn yenn këru diine yi nga xam ne ba léegi bëgguñu l'école bi mm-hmm. ñu gën ñoo mu nekk donc bunt boo xam ne ñoom it danañ ci mën a waxtaan ak ñoom pour ñu gën a ubbeeku ci mbirum l'école mm-hmm. donc loolu bokk na ci li ñu ñaan euh, li ñu ñaan mooy mu weesu kilifa diine yi mais fexe ba ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee def seen loxo ñu mën nag di jokkoo ñun war nañoo toog ak waa kilifa diine yi pour jox leen suñuy expérience bi ñu ci am parce que ñoom nekk ñu quotidien ci affaire hmm. ñu ñoo ci nekk d' accord. Hmm. Euh, war nañoo mën a waxtaan ak euh, organisation droit de l'homme yi waxtaan ak chef coutumier yi et cetera donc bu ñu demee daal ba nga xam ne système bi ñi ko moom muy askan bi. Hmm. nangu nañ ko ci ñi koy jël en otage mooy jàngalekat beeg ministre bi. bu boobaa da am service éducatif bi amul conséquence nga muy lan si ndax amul conséquence. Euh, ni ci kilifa diine yi dugalee seen loxo. waaw c'est-à-dire que kilifa diine yi moom euh, benn conséquence bi nga xam ni gis nañ ko mooy bis bu ñu demee ba ñun li daloon médiateur yu bëri. Mhm. mooy joxe seen kàddu arrêté grève bi ba pare ñi ñu ko sekkal bañ a jëfe li ñu waxee. Mhm. ah boobaa dana xaw a yàq deru kilifa diine googu de kooku benn mbir lay doon te boobaa ah pour mu jóg suba mu jógaat suba. Euh, wat mbir dana jafe. Mhm. lolou may waral ñun chaque fois ñu gouvernement bu ñom ñoom parce que déggoon nañ fi médiateur yo xamni ay député lañ ñang ngi koy fàttaliku daaw ak daw jékki. Mhm. légui tay dafa melni syndicat mu yi bëggatuñu dégg sax loolu. ndax li ñu waxantoon defuñu ko. Mhm. dégg nañ fi ay médiateur yo xamni euh, je ne sais pas quoi ay ay ay ñoo euh, euh yan yan responsabilité au plan politique. Hein? Abdoulaye Matar Diop et cetera. donc aujourd'hui buñu fexé muy gouvernement bu muy syndicat yi. bu ñu ba. dootul amati benn médiateur bu am crédibilité dootul amati benn médiateur bu am doole. bu ñu fexee ba ñoom ñëpp ñu néewal leen doole néewal doole ko si def néewal doole député yi. néewal doole chef religieux yi néewal doole boobaa ñoom seen xeex dana gën a jaxasoo. amuñu intérêt wu loolu nañu góorgóorlu ci xam ni ñoom ñaar muy gouvernement muy syndicat dañu am intérêt wu ñu am ay acteurs yu objectif yoo xam ne du far fenn ay acteurs yu dëgg. yu xam mbir mi yoo xam dañ leen di dooleel ba bu subaa bu ñuy xeex ñu am ñu leen di mën a diggante di leen ci àtte parce que xeex boo gis dafay am arbitre. bon bu amul rek football bi ngay seetaan yi nii Europe bi. bis bu amul woon arbitre xeex dana fa. xeex lay mujjee dana dana xeex lay mujjee. Mhm. lépp loo gis dafay am arbitre. ci biir loolu damay gis ni taxawaayu kilifa diine yooyu noonu comme ni nga waxee mën na jur lu bëri waaye est aussi amul ay yeneen ci askan bi ay nit ñoo xamante ni.

ay organisation xam dañu jël souvent distance ci mbirum ak njàngale mhm. kon nag ñu ngi leen xëcc dànk ñu ñëw duñ ko xeeb mhm. nañ continuer di fexe ba askan bi gën a dugal loxoom ci biir njàngal dem ci association de parents d'élèves yi adhéré mhm. nekk ci comité de gestion de l'école yi di dugg seen i l'école yi doom di xam seen i jàngalekatu doom nan la tudd di xam ndax école ba am na ndox am na courant amul courant di xool lu tax waa élève euh, jàngalekat ba gréew ndax moo am dëgg ndax amul dëgg donc il faut askan bi gën ci dugal loxo di seet ki nga xam ni moom moo ngi ci askan bi waaye mën yàlla def na maçon la mu ne kër suma école école doom ji kat am na bëtt bëtt bi nan laa ci mën a contribuer donc na la fexe ba ñu sot l'école bi loolu dafa am solo mais loolu yëpp dafay lalu ci dëgg lalu ci dëgg euh, loolu moom la ñu moom la ñu jàpp donc jàpp nañ ni évidemment euh, askan bi war na cee gën a dugal loxoom c'est vrai que euh, ñoo ngi góorgóorlu mm-hmm. mais ba léegi xeeb nañ ko beneen bi nga xam ne gis nañ ko ci ces questions boobu mooy Euh, ñun nanguwuñu loolu ñu tuddee euh, démission xam nga Sénégal bu ñuy wax rek yenn saa yi li ñëpp li ñëpp bokk. Mm. relation bi ñu am ak li bokk moo jafe. relation bi ñu am ak moo jafe. Mm. Mm-hmm. xoolal làmp mbedd yi dañuy jàpp ni làmp buur la yenn saa yi xale yi toj ko. yaa ngi fàttali robinet mbedd. Mm-hmm. yenn saa yi ñu ubbi bàyyi mu tuuru. Mm-hmm. l' bi aussi nga xam ne du privé bi école publique bi mooy école buur bi. am na la muy demee waajur du ko jox këdd gi mu war du ko jox toppatoo bi ko war mhm. du ko jox fulle bi mu war du ko jox dugal loxo bi mu ci war dugal loxo kon nag loolu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ni jàpp nañ ni euh, war nañ ci gën a war nañ ci gën a tabax mhm. hmm. d'ici 2030 droit à l'éducation de qualité pour tous plan boobu nan ngeen ko nan ngeen ko bëggee nan ngeen xalaatee ni moom ngeen di jaar ba mu jot waaw ah, loolu mooy les objectifs de développement durable les ODD yi ngay dégg. Mhm. xam nga Sénégal adduna dafa nekkoon ci OMD yi objectif millénaire objectif millénaire pour le développement. Mhm. yoo xam ne moo doon 2015 mille deux mille mhm. ñu gis ni bëri na ay fànn yoo xam ni réew yëpp dañ ko laaj Sénégal yi dafa bokk si ñu ko lajj. parce que 2015 mille deux mille quinze jàppoon mooy xale yu Sénégal yëpp ak xale yu àdduna yëpp war nañoo mën a dugg au moins ci benn offre éducative war nañoo jàng am xam-xam. te gis nañ ni ba 2015 Sénégal bëri na boo jëlee téeméer xale yu ne lu ëpp juróom jànguñu leen jànguñu école jànguñu arab jànguñu alxuraan jànguñu métier jànguñu dara. Mhm. ñu taxawal donc kon ñun lajj nañ ko mais du ñun kese. Mhm. bon bien que voilà ñun war nañoo gën a góorgóorlu mais aussi dañ ne woon aussi dañuy fexe ba du yem ci xale bi dugg waaye bu fa duggee dafay am qualité. Mhm. mais sel nañ Sénégal euh, bëri na si ñu nga xam ne dugguñu ci l'école bi c'est parce que soit seen doole moo moo ko matewul. wala dañoo am ay laago.

Euh, waxtaan yi nekkoon Addis Ababa euh, New York yëpp yàlla def na ñun fekke nañ yëpp mhm. donc ñun ay seede lañ yoo xam ne ci mbir moomu mhm. indi nañ ci aussi ay contribution yemuñu kese ci croiser le bras fekkee indi nañ ci ay contribution déglu nañ ñu mhm. li ñu jàpp daal mooy objectif développement durable yi ñu jëm mooy 2030 mooy déjà ñu jàpp ni mbir njàng ak njàngale moo war a nekk levier de développement cest dire que yeneen objectif yi am yëpp suñu bëggee na ñëpp nangu ni éducation moo ko war a boot. dëgg la problème mu environnement bi ñuy wax. Mhm. éducation moom moo war a tax ba nit ki dootul lekkati crème glacée rek sànni ko. Mhm. Euh, problème mu civisme jikko yi. Hein? Mhm. jàpp nañu éducation moo ko war a boot. donc euh, problème yeneen objectif de développement durable yi ñu posé alimentation lekk bu baax bu set bu sell. jàpp nañu éducation moo moo ko war a boot. jàpp nañu donc objectif de développement durable yëpp seen soubassement seen levier fi war a tax ñu jaaree fa pour atteindre yeneen objectif yëpp mooy éducation. bu ñu ci nangoo. kon ñun ñëpp dañoo war a fexe sot joxaat doole mbirum njàng ak njàngale. loolu nag moom mooy ODD yi objectif de développement durable donc fii ak 2030 mooy échéance bi. Mm. Ah ak ay cibles yu bëri. mais liñ ci jàpp mooy fii ak 2030 il faut que biyoon ñu góorgóorlu ba nga xam ne njàng dootul nekk kese dugg l'école waaye day nekk dugg l'école amee fa xam-xam tekkee fa. Mm-hmm. donc qualité loolu la seet si njàng maintenant bu njëkk bu ñu njàng mooy moo ngi dem l'école ah suma doom de moo ngi dem l'école waaye dootu jamono ñun pour ñun jàng mooy nga mën a dugg l'école benn. mais nga amee fa xam-xam. bu leer ak mën-mën yu leer ensuite nga mën faa tekkee. Hmm. léegi loolu bu ñu ko dajalee jàpp nañ ni kii moo ngi ci objectif bu 2030 yi. Hmm. bu fekkee dugg na kese sa manqué ci benn ñoom nekkul ci objectif bu 2030 yi. ci biir objectif yooyu noonu damay dañuy dégg ci askan bi ñuy coow tout le temps dajale ay diplôme ba paree amoo foo liggéeyi. waaw loolu dafa bëri mooy sànq li ma la wax ne la euh, dugg jàng yemul kese ci dugg mais da ngay dugg. je fa xam-xam fa mën pour parce que dafa am un diplômé. Mm-hmm. am un qualifié. mën nga am diplôme man euh, ñun ñu nekk ci ONG yi nga jot ben biraam dama bëgg def stage mais bo que ak mom la am na en ceci maîtrise en cela master en xaw mais que je ak mom ben yoon ñaar yoon da nga de. Mm-hmm. donc diplôme ak mën ak am qualification bi mhm. am na différence mhm. mën nga am diplôme internet xaw ma nu mu tudd seen diplôme ba lan lay lan mhm. ba bañ a am qualification bi tey bu ñu la tegoon ci rek doo ci génn donc ñun loolu la ñu bëgg dañu bëgg am ñoo xam ne dañuy qualifié ñoo xam ne système bi dootul nekkati un système théorique boo xam lépp dafay yem ci restitution jëlee système Sénégal xale boo ci laaj na ko lan mooy euh, je ne sais pas euh, tuberculose la ko nan avons fait ordinateur nous avons la da ngay def un donc tout ce qui est restitution nous on est très fort. moy mm-hmm. réciter. Mm-hmm. mais nan lañuy au delà de réciter restitution nous mëna nous ñu nous ñu mën di jëf ñu qualifié wu. Mm-hmm. di ko di jëf am compétence ah ni moy jikko ju baax mën ko réciter buñ lo la sa dund ñu gis ne yaa dund loolu. boo un tuberculose ni lañ koy ni lañ koy moyto buñ la ni ñu yow tuberculose. bu ñu la joxee bagage nga mën a teg tegale ko defar rajo donc qualification am na solo ci suñu système yi parce boo ko deful li ci mooy àdduna dañu nekk ci àdduna bu pragmatique boo xam ne ñu yàkkamti. Mhm. gars yi amatuñu jotu perte temps. effectivement amatuñu jot boobu donc il faut ñu amati loolu moo tax sànq bi ngay wax euh, diagnostic bi ñun la il faut ñu xoolaat même orientation. Mhm. bu système bi. Mhm. ni muy jàngalee ak ni muy jàngalee lan lay jàngalee yan matériel la am mënatuñu nekk kese ci benn système boo xam ne lépp dafay nekk théorie. lépp dafay nekk restitution lépp dafay nekk kese récitation. Mm-hmm. mais nan lay fexe ba suñuy loxo ak suñuy jikko ak suñuy tànk ak suñuy gët lépp mën a ñu ñu mën leen a ñu mën leen a tàggat ñu mën leen a ñu mën leen a éduquer mën leen a yar ba ñoom ñu mën a def li leen di laaj. Mm-hmm. waaw monsieur Mbaw loolu am na solo point yi nga xamante ni bëgg nañ ci waxtaan yëpp wax dëgg yàlla am naa ci satisfaction quoi sama xol sedd na loolu ci kii parce que dem gis naa ne daal. ku mel na ko si deb ak yow fi ñuy xaar ñun suñu askan fu ngeen ko bëgg jëme yàlla na leen yàlla dimbali ci combat boobu amiin amiin amiin waaw euh, xam naa rek dama lay bàyyi nga wax sa dernier mot ak sa objectif waaw dañu moo bi da xanaa mooy sant la bu baax Birahim mhm. di la encouragé it parce que war nañu di continuer di def waxtaan yoo xam ne day jëm ci mbirum li ngay wax ni mhm. jàng jàngale ak jikko yi di sant it euh, ñëpp ñu nga xam ne ñu ñuy déglu di leen di fàttali ak di ñaax ñëpp ni mbirum l'école moom dafa nekk mbir mu sérieux mhm. boo xam ne waruñu ko bàyyi benn wala ñaari nit. Mhm. na si ñëpp dugal seen loxo. Mhm. ñëpp xam ne bu ñu bëggee faj jàngoro yu Sénégal waxuma jàngoro yu l'école de. waaye jàngoro yu Sénégal ci lekkool kese lañ ko mën a jaarale. kon bu mu metti mukk ba ñu gedd bu ñu metti mukk ba ñu découragé nañ jéem bu ñu jéemee jaar ci bunt bi mu sot sottiwul ñu ubbi beneen bunt jaar fa. jaar ci parenteer bi. wante amuñu droit ñun ñëpp dañu ci dugal suñu loxo ñu bañ a fàttali ni l'école bi suñu l'école la ñun ñoo ko tabax. Mm-hmm. ñun ñooy fay ñi ci nekk. Mm-hmm. ñun la war a amal njariñ kon bu ñu gedd bu ñu tàyyi nañu continuer gëm ko te xam ni coow yi nga xam yépp ñoo ngi koy coow ci réew yi ndax mbay bi dox na ndax santé bi des na problème mu civique jikko yi valeur yi yooyu yépp bu ñu ko bëggee faj. Mm-hmm. amul fenn fu ñu ko mën a jaarale lu dul ci mbirum njàng ak njàngale ñoo ngi leen sant di leen